Euh, tey nag ñu ñëwoon fi doon waxtaan si ak ñi nga xam ni ñii ñoom lañ bokkal commune bi muy commune Dendey Gouy Gui euh, dëkk bii nag di dëkk boo xam ni sëñ Mandoumbe Mbàkke moo ko sanc sëñ Mandoumbe bi mu fi nekkee fi la liggéey la yàlla ba génn àddina dem àjjana fekk Serigne Touba bàyyi fi taawam bu baax bu muy Serigne Modou Xabaan sëñ Modou Xabaan ne fi di liggéeyal yàlla ba dem àjjana bàyyi fi sëñ Mamor sëñ Mamor liggéey fi ba dem àjjana bàyyi fi sëñ Ibra Xujja nuy ñaan yàlla sunu borom may ko fan wu gudd moom ak njabootu sëñ mën Mandoumbe gépp ak sëñ Maodo Xabaan gépp euh, li tax ma ñëw tey dañu dëgg mal ay élection muy élection maire euh, te dëkk bi wax dëgg yàlla dëkk la boo xam ni li ñu manqué bari na euh, ma yaakaar ni dëkk buy fi laa xëye woon ak ñaari téeméer 1969 ñaari téeméer yi ma fi jógee woon 69 sama yaay da koo leb pendant deux mois dëkk bee ñu wax njoppam la ko génn góor gu ñu wax Baye seex fay lebale ñaar téeméer ma dem ci ndakaaru di góorgóorlu di jàng jub di daan sama doole ba yëg si ma yëg si kon lépp lu ma am ci àddina ci pexe ci xam-xam moom laa bëgg a dellu ci dëkk bii di commune Dendeye guy Gui yéen ñëw ngeen fi yéen taskati xabaar yi gis ngeen ne dëkk bi amuñu courant amuñuy làmp am nañu courant nag mais amuñuy làmp courant bi ci jamonoy président Abdou juuf lañ ko fi defan booba Maguette Diouf mooy ministre énergie ba léegi benn poto yokkuwu ci benn làmp yokk wu ci yoon wi gis ngeen bi ngeen di ñëw presque bu sa bu sa oto jàddee tuuti dañ lay lonk mbaa nga woo ay nit ñu puus la poussière bi suñu jigéen ñi bu ñu jëmee ci marché bii di Kër Yacine bu ñu dellu si waatee kenn mënta dugg ci waañ wi togg te sanguwuloo ndax poussière soxla nañu tali bi ñuul bëgg nañu ay làmp soxla nañu ay forage soxla nañu gis ngeen suñu poste de santé bi poste de santé bi amul lu mat juróomi presque benn ventilateur fa nekk wala sax am na ventilateur te yooyu yëpp nag li ma xam te gëm ko te yaakaar ci yàlla ak yonent bi ak sama liggéey ndek sama barke baay su ma doonee maire commune Dendeye guy gi yooyu yëpp nañ ko am bu soobee yàlla projet yi ma tëral nag ak ñi ma àndal di liggéey ci commune bi ndax commune bi góor ñeek jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi ñëpp laa àndal mooy fas nañu yéene bu ñu nu joxee commune bi di commune Dendeye Gouye Gui ñu jiite ko ak suñu équipe yi ñuy àndal fas yéene liggéey bëgg naa mu am luuma boo xam ne dañu koy dugg nañuy duggee jawbe di ko duggee Kër Biassine di ko duggee Mbar di ko duggee euh, euh, sanjara di ko duggee euh, dëkk yi mag yëpp ci àddina bëgg nañ mu am luuma bëgg nañu suñu poste de santé bi mu nekk dispensaire wala pourquoi pas hôpital comme ni ko dëkk yëpp amee soxla nañu ñu yokk làmp yi soxla nañu commune bi dëkk yëpp am làmp dëkk yëpp am ndox ba ba léegi. commune bi am na ci dëkk yoo xam ne yii amaguñu ndox amuñu robinet dañuy takk sareet dem ci dëkk bi duy ay barigo yóbbu te loolu laa bëgg mu jeex fi dama bëgg kër gu nekk am robine kër gu nekk am làmp sunu doom yiy jàng kenn ku ci nekk boo dee jàng say leçon am courant bu leer boo mën a jànge soxla nañu suñu jigéen ñi noppalu ci wal soxla nañu noppalu ci yenu paan soxla nañu noppalu ci taxan bi ci des mooy sunu sën yaa ngi nii commune bi amul benn université booy dem te ci Sénégal boo xam ni amul étudiant boo xam ni commune Dendeye guy Gui la nekk am na ci ñoo xam ni liggéey jàng nañu ba seen jàng jeex liggéeyuñu muy ci góor ñi ak jigéen ñi te loolu lépp li tax ñu man ko def mooy yàlla suturaal ñu ñu toog ci dogalukaay bi bu ñu bëggee gis président Macky Sall wala président bu mu mën a doon bu ñu bëggee gis gouverneur bu ñu bëggee gis ministre de l'intérieur bu ñu bëggee gis préfet fu ñu amee soxla man a bind mbaa ñu sol suñu daal dem fa ndax fii man doo xam ni doonuma maire mën naa loolu suma bëggee gis président dama koy gis su ma bëggee gis ministre koy gis su ma bëggee gis gouverneur dama koy gis su bëggee gis préfet dama koy gis pexe yi may indee li ma fi am di ko fi def ndax lépp lu fi état war a indi bala koo état indi fekk man indi naa ko ba pare état door koy indi ndax man maa bëgg suma ma sañoon commune bi lu fi nit soxla nit du ko dégg maa koy faj loolu nag su fekkente ni bi yàlla suturaal nañu bu ñu doonee maire yaakaar nañ ne dinañ ko gën a mën bàndeek dogal yàlla. ñun nag suñu candidature nag bu nu ko nun dañu doon candidat ci commune Dendeye Gouy Gui waaye nag ci Benno Bokk Yaakaar la bokk parce que dama jiite benn mouvement bu ñu wax lëngoo boo xam ne maa ngi drainer soixante-dix mille membres actuellement waaye nag ci candidat maire yi moom sama commune fi laay watee filaay laay bu àndeek dogal yàlla.